vendredi sur Assalaamy TV. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokk taaluba yi mbokk ma bokkal réew mi maa ngi leen nuyu di leen ziare bu baax a baax di leen dëkkal émission bu mag boo xam ne day am si rajo télévision Assalaamy bu 10 jotee jàpp 11h si bépp vendredi. ngeen si ànd ak seen xarit seen mbokk Djibril mbay di waxtaanee lépp diine di si waxtaanee bépp actualité mbokk yi comme ni ma koy faral di waxee chaque jour rek di waaroo ko waaree ka xam lee ka xam di laa biire koo gis bëgg wiiwam mbokk yi foofu la 99 point 0 si bépp vendredi bu 10h jotee jàpp 11h jërë ngeen jëf.